bis bu jot gouvernement du Sénégal dina joxe deux cent millions pour étudiants yi lekk ci añ ci reer ci ndékki ci mooy dépense bi gouvernement di joxe ci cité universitaire yi dépense ñaar téeméeri million la par bis loolu lañuy def ci social bokk ci juróom-ñaar fukki junni milliards la ñuy jox bourse ci étudiants yi juróom-ñaar fukki junni juróom-ñaar fukki milliards la ñuy jox étudiants yi ci bourse gouvernement du Sénégal tey cent un mille étudiants ñooy boursier téeméeri junni ak benn étudiant ñooy boursier ñooy boursier mooy étudiant bu nekk at bi buñu jëlee moyenne jox nañ la sept cent mille francs mooy jox nañ la juróom at bu jot weer bu jot dinañ jox étudiant ci moyen fukki junni ak benn dinañ ko jox añ mu fay cent franc dinañ ko jox ndékki mu fay cinquante franc dinañ ko jox reer mu fay cent franc ensuite dinañ ko jox fukki junni ak benn loolu mooy li gouvernement bi def social boo amee problème